jërëjëf mbokki internet ci ñuy bàyyi xel fu waaye mën a ne ci réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen mbokk yi comme ni ñu koy defee bés bu jot ñu ngi fii ci géejawaay c'est si le grand champion ñu fekk nag tey ci bërëbu liggéeyukaayam mën naa ne moom boo xoolee interview yi muy def yu bare bare bare da koy fekk fii ci bërëb bi muy liggéey mbër la moo xam ni xamaana yaakaaru ci làmb kese ndax bari na mbër yoo xam ni bu leen waxee ñu ni ci làmb rek laa yaakaar waaye moom yaakaar naa ni loolu defu ko yaakaar na ci làmb yaakaar na ci leneen itam te nag ñu ñëw ngir waxtaan ak moom ci làmb ci carrière bi ñëw ngir waxtaan ak moom tamit ci adversaire yi un ak ci combat yi nga xam ni yaakaar naa ne bi mu taxawee yàggul bokk na ci Franc Bombardier waaye yus nduru Baye bala Talfa démb la taxaw ñu ci remercier waa jàmbar production bu baax a baax ci combat boobu nga xam ne taxawal nañ ko ñu nuyu ko mom Eumeu sen baye ko mu nuyoog bokk internet yu koy suivre. Mhm. assalamu alaykum wa Zarak Vision. Zarak pour eh, eh, eh, Vision. Zarak Vision. Zarak Vision. Mhm. ñu ngi di siyaar gën dox sen waatu way di wax ne mosu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim dañuy sant yalla bu baax julli suñu di sant suñu ñaari wajur sant sama serigne si Mor Ablaye Fandar ñaan yalla suñu borom yokk leeram te taas ñu si barkeem. Mhm di siyaar sama sëriñ suñu Cheikh pintu fal di siyaar kulufum Baye fal di nuyu waa fal aku akau waa fal Fall yëpp yëpp yëpp di nuyu suma waa dëkk waa Diourbel rawatina waa Kër Cheikh di nuyu aussi usi Mbour suma dëkku yaay di nuyu aussi géejawaay bi yëpp yëpp yëpp di nuyu mhm. aku waa main jamono daru cakai bi di siyaar di leen def seen semua di nuyu suma ay xarit bopp suma staff mi di siyaar ñoom ñëpp di nyano ñaanal kamu xam mana per ci mata père xam Tafa walo Vieux Kane xam nga Lamine Touré. xam nga ñoom ñëpp ma leen di siyaar bu baax di leen def seen waaj di nuyu aussi koo xamante ni kenn la ci man dinaa ko sam muy xama borom euh, Drame Dramé holding compagnie compagnie maa ngi ko nuyu bu baax a baax a baax. Mhm. muy ku baax xam nga nit ku mën a sonn si doomu aadama aussi tamit ñu ngi koy ñaanal bu baax compagnie bi dem ba te jii mu maîtriser marché àdduna bi ñu ngi ko koy ñaanal bu baax a baax a baax. di nuyu mhm. aussi xam nga mm, axlu làmb yëpp yëpp yëpp di nuyu waa garage bi ma nekk. ouvrier yépp maa leen di siyaar leen jox seen wàccuwaay. Mhm. xam nga ñu ngi wéyal waxtaan bi si kanam. ok am na solo ñëw naa fekk la ci sa bërëbu liggéeyukaay mu mel ni à part lamb yaa ngi yaakaar leneen yaakaar naa. waaw man à part lamb lii laa balaa lamb lii laa njëkk a def parce que alam muy nuyu sama patron ma koy ñaanal yàlla suñu borom. xaar mhm. ko àjjana muy karanjaay. Mhm. maa ngi koy ñaanal yàlla suñu borom xaar ko àjjana bu baax a baax a baax xam nga man balaa ma à l'âge de 12 ans laa nekk ci. bi may bi may bëre arène en en 2007 2008. la la bi muy bëre arène en 2007 2008 laa ko joon si garage bi xam nga mais tamit bu ma fiy jógee fekk na ma mun suma métier xam nga tey jii gis nga lii tuuma du tee ñu nataal man kii moom dugal ci làmb sax. ndeysaan grand bii nii moom mu njëkk a takkal ngeen ci làmb. te ci mhm. garage bi la woon. Mhm. kon làmb ci garage bi la ma daboo xam nga. lépp dañuy sant yàlla rek tey ji xam nga di nuyu ñëpp aussi tamit di wax na ñun tooguñu rek di xaar làmb quoi bu làmb ñëwee ñu nekk si bu ñëwul ñu ko ne suñu nga xamante ni moom lañ xam muy suñu liggéey mhm. Mhm. métier bi ndax loo bëgg la wala loolu la forcé la nga dugg ci yàgg si non suma ay grand frère ñoo ma ko dugaloon nit loo bëggul doo ci xam dara ok waaw ni nga xamante ni nekk na ci sa xol faaw nga di nga ci di nga ci di nga ci évoluer te tollee suñu bëgg-bëgg la woon xam nga évoluer nañ si bu baax a baax a baax mhm. tey ji waaw luñ ci deful rek ci la daanaka. xam mhm. nga ah, mun nañ ci lu bari macha allah. xam nga di nuyu aussi tamit sama copain bu nekkal fii Habib xam nga di nuyu aussi Xaalis ak ndongo booy fi nekk yëpp Issa Ahmed booy yëpp ñu leen di siyaar. Mhm. dafa mel ni métier bu xaalis la ndax euh, boo xoolee ñi may faral di dégg ñu koy wax yëpp dañ naan métier bu am xaalis la doon naka metti na mais xaalis baa ngi ñëw. non xaalis moom ñëwul ni mu war a ñëwee mais ñëwul ni mu war a ñëwee tool yee dafa yàqu léegi. ok bu njëkk da nga daan gis ku ñëw gaare otoom nga formeel dagg porte yi formé dagg capot formé dagg lépp formé mais tey ji loolu amatul gars yi ñëw jënd seen quatre porte capot mal mhm. ñëw xam nga sas yi ngay defar sas yi en fait tool yi gën na gën na yomb léegi mhm. par rapport ak bu njëkk nga xamante ni porte mun na am pourriture maanaam mun na ñor ëllëg ko waaj dem jënd ko nga dagal ko formé ko ba tey loolu mi ngi am sax mhm. mais bareetul quoi waaw ndax conteneur yi ñu ñëw pièces détachées yi ñu ngi wàcc porte yaa ngi ñëw teji lo bëgg rek ba bala nga dem gaay dañuy préfère dem changer porte bi ñëw tek mu nekk lu bees quoi. ok wa ok monter rek nga ci def rek leer ko mu mu niveau ak côté bi. lolu am na solo ban année nga dugg ci lamb ji. man lamb ji maa ngi ci dugg ay 2005 la commencé bëri. 2005. 2005 2004 2004 2005 dal ok da commencé beurentou ba saison 2007 2008 la bëri arène. saison 2007 2008 nga bëri ci arène bi. fii biir doole bi nekk boo ko passé tuuti fi ci yóbbu a takkee ngeen ci làmb. Mhm. après ñuy entraîné joor gi mhm. Mhm. sa premier combat kan nga ko bëreel. arène. waaw bu Thiaroye. Fifty Cent bu Thiaroye ok. 2005 wala 2007. 2007 ba euh, ñaata combat nga ci def. 18 am ci ñaata victoire. 12 victoire 5 défaites 6 défaites. ok ok yoon bi xawul yeex. ci gis-gis waaw yoon bi xaw na yéex mais comme li ma la wax ne la làmb mhm. xam nga ñun am nañ benn malchance ci làmb bu nga xamante nii te sant yàlla la wërsëg moo yemul xam nga bokkuñu ci ci ci lobi gars yi bokkuñu ci tey jii ku mel ne tey jii boo bokkee tey jii ci lobi jàmbaar mhm. xam nga jàmbaar da lay da da lay ciblé pour wutal la komba mhm. wala nga bokk tey jii ci lobi alburax production alburax production da lay ciblé pour nga bokk ci lobi gaston production wala institut lobby yi ok. Mhm. boo ci bokkee dañ leen pour wutal la combat parce yaay doon seen cible ñun nag suñu borom dogalul am nañ loolu mais ñooy suñu marque suñu bopp. Mhm. tey jii ku ci yor xale bu ndaw boo bëgg a jaarale ñu amuñu problème combat. Mhm. nag ñu fayal ñu jaaral ñu bëree la. ok comme que yow suñu avancement ñoru la wala sa booy boo yéegal ngay bëgg. parce que moo am supporter moo xew wala moo lii boo ñëwee bëgguñu bëree loolu dañuy fay lu nga xamante ni suñu prix la jar nañu ko ñu bëree la. Mhm. mais du nekkul ne n'importe kase ngay ñëw fay ñu ñu bëri la. mieux vaut mieux vaut ñu toog jàpp suñu ñaam pour ne ci luñ nekk. Mhm. xam nga parce que làmb dafa métti. làmb dafa métti. Mhm. lu ñuy def dañuy def mu nga xamante ni xam nga lu ñu mën a jariñ la quoi. ay borom xam nga ay kilifa lañ ay daal ñun daal ñoo suñu marque mu bopp fu ñuy fu ñuy bëri loolu dañuy fay xaalis bu weex. daal dama koy wax sama benn grand frère Alain maa koy nuyu de passage borom Rente Dakar. mun ko man tool ni suma marketing bop man mako yor ak mom sax Alain boobu. Mhm. ndax tamit ci lu baax rek lamay duggal xam nga lu baax rek lamay conseiller mako mhm. nuyu bu baax baax di nuyu famille yépp diko ñaanal jamm xam dama koy wax manako fu tool ni mu yor suma marketing bop dag may fay xaliss ma jaral ma bëree la fay lo ma lu jaral nga bàyyi ma ma continuer nekk ci suma bop mhm. nga am na ay promoteurs yu may woo nag pour walu combat affaire yoy non ya tamit boo ma sa blesser boo waxe nga bëgg ma bëreel. damay japp sama gemi waaye tamit su ma waxee sama kase di nga jàpp sama gémmiñ. ok Ah. ok loolu am na solo laataa ñu ñëw ci adversaire yi yu mel noonu dañuy ñëw ci euh, champion yi nga bëreel boo noonu limal tey ñi ñi nga bëreel ci ay champion bari na mais astur rek ci li may limal rek ñanday doon. waaw tey jii man bëri naa ak euh, Cheikh Niang bëri ak Kaw Cissé bëri naa ak Malam Ñaani mhm. ñoom ñëpp dama leen bëri naa ak euh, Limousine. Mhm. bëri naa ak Kalmunduur bëri naa ak ak ak ak Bour ak ak Euh, comment Baye Fall bëri naa bëri naa bëri naa ay combat yu nga xamante ni ay champion yu yu yu Moussa Ndoye bëri nañu aussi mhm. Moussa Ndoye moo a jox suma première défaite waaw uh-huh. ah, après Falaye Baldé numéro deux moo ma daanaat suma deuxième Falaye deux waaw uh-huh. mhm. ñëpp sàkkal aussi man moom bëri cere caax ma ak moom bëri nañ ñoom ñëpp dama leen daan ok ok nga bëreek champion yu toll noonu fi la doon séntoo général Malick aussi général Malick Serigne Ndiaye numéro 2. Serigne Ndiaye numéro 2. waaw Serigne Ndiaye dañu dañoo dañoo da ngaa bëre ak moom ba pare nag nit ñi xam ne sa mbokk ma. yaakaar naa ne mbokk na sa diggante ñaar ay mbokk. Mhm. suma mbokk jullit la. gëj nañ ci Arama ak Awa. ok mais suma rakk papaam moo nekk ménagère am. te loolu du nëbbu. Mhm. bon xam la balaa làmb ji lu xam la balaa làmb ji. Mhm. suma rakk wax boobu aussi lu xam la balaa làmb ji. mais ma koy nuyu de passage fel Giro Mbaye maa ngi koy bu baax si suma papa ju baax la. sama musa na bere day ñew wàcc ba ci man xam nga conseiller ma après dem. -hmm. bon mais effort moy def lolu quoi. waaw waaw jour bobu xam nga dafa jël njural tek ne dund effort bi. te te te lolu la espoir loolu la quoi. Mhm, nit di mhm. ngeen bokk ben keur xam nga te du ngeen bokk fu ngeen far. -hmm. waaw effort moy def lolu ok voilà. euh, wax nga ko legi fi la doon sento yexi wo fa hein ah, dañ doon sento monsieur Junior fu kawé kawé ci lamb ndaran yu bari di la ciow ay jamono yaakaar ne di nga yegg fu kawé kawé ci lamb lan mo la gàllankoor ba ba ba fi la doon sento yegg ci woo fa donte que wax nga ko léegi sank ni amo lobby bo nek ci walu production moo xeyna xëy yoon bi xawa a mais est-ce que kessé la. wa mais si loolu kese la bokk ñu ci igri bu baax muy école de Mor Fadam ñu bu baax. Mhm. ñu nek ak suñu ay rak xam nga di di di bëre di nuyu aussi suma frère Bada suma frère mbaytin mhm. di ñaanal bébé guuy gi combat bi mu dem yalla gëna yomb ci combat yépp suñu borom may ko ndam lu seddu guuy ñi ngi tagatu bu baax li lamb ji laaj ñi ngi koy def xam nga ñi ngi def lu ñu war def ci lamb yépp kon la mo fi dess mhm. moy que xam nga bokku guñ ci lobby yi parce que lobby pour nga lek ci xaalis bi ko nga bokku ci lobby ok ok gaay bon buñ amul lu ñu ci yow moy que faaw ñu ñu ñu manam ñu bëgg nga dem yow nga xam duñ séntu ci dara. séntu wuñ ci yow nga jënd billet séntu wuñ ci leneen xam nga. Mhm. soit da ngay yor xaalis bu baari tey jii nga gisoon mbay ñu ne ama seen si mu moo bëri tey benn Alain ñëw Alain borom dañ ko Dakar mhm. ñëw jëndal ko cinq bloc gars yi loolu la ñuy wër. Mhm. xam nga làmb léegi mbër yaa fay sa bopp nañu waxante dëgg promoteur léegi freetul mu nga xamante ni da koy rey mbëri ñooy fay seen bopp. ok gars yi boorul jënd ay bloc billet yii duñ la tëgg. par rapport ak bu njëkk nga xamante ni da ngay ñëw def tëgg làmb ak amour après la ci fekk si bon sa kumpa lay doon. Mhm. Mhm. sport nekkul ne combattant bi yow combattant en personne fii de nga koy gis en Sénégal ngay gis làmb yow combattant en personne yaay yaay yaay mhm. mais boo gisee box bi leneen leneen sponsor bi moo ko yor wala tey jii bëgg-bëgg bi ak télévision yi xama da ci am solo bu baax a baax a baax a baax. ok mais làmb boo xoolee gars dañu. dañu dañu doon bëgg di piège mbeuri ba far ray seen bop ba da nga gis ben promoteur nga xamantene day sponsor sponsor da kay wuyu mais du ko sax bëgg wax. man gis na waaw direct direct la wax gis na direct ben promoteur tok sponsor bi tok mu wax ne lamb dafa metti lamb dafa li. di di di doyalal lamb sponsor mi tok sponsor bu ñu mi war dana ko lamb su meloon ni nga wax ni ñu duggu sun xaaliss barki mhm. mam sey rafal mhm. je me rappelle très bien mang koy fatelu ko bu baax baax du promoteur la nak mhm. te loolu gàcce la xam nga te jii di di di di am ci dara te ñi ci wax naan dañuy perte ñëpp gisoo ci kenn tëgg daaw da ngay ñëwaat. amee ah, bari na ñu ciy perte ah. ah mais euh, ñàkk xëy na ñàkk sponsor yi si la bokk waaw da ngay gagné tey suba nga perte. c'est ça la vie business moo demee noonu mun nga si gagné tey suba nga perte am na ñoo xamante ne dañuy dugg ci làmb ndax tur. am na ñoo ne dañuy dugg ci làmb ndax dañoo bëgg. tey jii ku moon tey Gaston production ko gis wala Mounia production ñooñu nga xam ne ñii dañoo yàgg ak làmb mhm. balaa son sor ji dëgër mhm. ay ay ay li ñu ko laa production yi li ñu ko laay ñooñu mhm. nga xam ne ñii dañoo yàgg ak làmb xam nga dafa am ay ay maanaam yu métti yu nga xamante ni yu ci nekk bon boo bokkul ci ci lobby yi su waay pour nga avancer ci wala nga lekk ci xaalis du yomb te nekkul ne ñëpp ay tekk ci làmb loolu na ko mbër yëpp bàyyi xel nekkul ne ñëpp ñooy tekk ci làmb par force ñii mhm. mun nañ ci tekk ñii mun nañ ci jaare am beneen opportunité génn def leneen mhm. xam nga te mi ngi am am na mbër yu si jaaree gis nga mbër yu bari tukki nañ toog jàpp seen ñàmbur gérer seen famille mhm. xam nga loolu la wërsëg yemul ok man lu tax ma tara si làmb munuma leen lii moo tax en fait benn nag damoon naa fi waaw naa quatre ans bëréewu ma xam nga te loolu mbir yàlla la mbir yàlla la dafa ma waroon arrivé arrivé na ma xam nga li ci des nag moom mbir yalla mom euh, jambi du ko mënu ko jël. ok dala mbir mhm. yalla jambi bi mënu ko jël. Mhm. lamb dal ñun ñu ngi fi xam nga gennu ñu rew mi. bon mosoo genn rew mi dem France États-Unis wajal non non wala yu mel non wala Maroc sax. gambi ak ak ak ak ak Mauritanie. ok ah, ok génn naa dem naa Gambie ak Mauritanie la mos a dem te doon préparation combat mo ko yobbu mhm. gambi mo waron dem di seeti mm, euh, Serigne Thiam maa ngi ko nuyu do passage suma frère la. mooy. président CNG bu Gambie dama doon faj su ma fekk boobu suma dam dam bi dafa ma sonaloon ma demoon doon faju ji al Diourbel laa fajoo presque mhm, mhm, mhm, loolu moom fa yóbboon quoi ok lan moo la gën a naqari ci làmb ci làmb làmb est-ce que am naa ma naqari bariwul sa sama combat ak kii mu rawatin mu rawatin ah, waaw ok ok daf la daf daal waaw métti woon na ma trop ok lu waral mu bettoon la lan la. waaw parce que bu baax baax baax a baax a baax. Mhm. mais amoon na ay yu nekk si biir yoo xamante ni bon. <laughs> bu ko ma desee presque une semaine laa commencé woon sangoo galaaj. Mhm. bu mu desee une commencé sangoo galaaj. ok combat mu métti la daal. Mhm. dan la ci dan la ci dan la ci piégé. non même comme ni ko bëri di waxee léegi wala. mun nga nekk ak ñoo xamante ni. bon dañ lay yéene mais duñu ay nitu làmb. ok. lol ah, loolu bokk na ci luma xawa xaw tardé ci suma mm-hmm. làmb ay nit yo xam dañ la jege won waaw dañ lay yéné torop nak waaw mais duñu nitu làmb duñu ay nitu làmb manam da nga non and ak ño xamni xeyna duñu na ay nitu làmb ñu làmb suma ñoy suma kilifa ñoy nekkon suma lepp ah ok mais nek ngon ay nitu làmb mm-hmm. waaw mm-hmm. du ma ne la day waxuñu la nag dégg du ne waxuma la daf ñu moy dañ moy yéné safaan wala uh-huh. dañ ma doon yéné torop mais ñom am personne duñu nitu làmb du nitu làmb ok ok ok nga dem mu yàlla xañ la. waaw nga waajoon ko waajaay waacaay bu métti. parce que boo xoolee 2012 la woon. 2012 bu may bu may bëree ak mu rawatin maa ngi tegale woon presque quatre victoires. Mhm. quatre victoires laa tegale woon défilé bëri ay ay malam ñaani ay Cheikh Ñang mhm. ay Baye Fall. Mhm. xam nga euh, Kaw Cissé. ñoom ñëpp bu leen tegale woon boo xoolee ñu ñëw ñu ñëw bi. suñu woon ñaan na ko yàlla yërëm. mu may waxoon ne ma soo paree ci kii moo ma la jox Xaadim Njaay de mhm. waaw Xaadim Njaay de bu caaro mooy dégg mhm. Matar Njaay mu may dégg xam bu fàttewul dina xam quoi parce que combat boobu lépp ci loxoom la jaaroon mhm. moom tamit bokk na ci ñi nga xamante ni moo Xaadim Samb ñoo mu njëkk a ci làmb Matar Njaay waaw Matar Njaay waaw ok léegi jóge nga ci combat bu rëy muy diggan sa diggante ak Serigne Ndiaye a 2 yàlla def nga perte ko alors fan la fan la Eumeu Sène junior jëm boobaak léegi ndax mi ngi bëgg a durer ah. toogaay bi ndax ñu ngi ci wax ay combat waaw bari na combat yu ma si proposé comme maa ngi déggoon fan yii passé Jambala mi ngi doon wax naan Eumeu Sène junior dañ ko jox sama avance. mu mhm. bañ ok champion daw ma la moytuwuma la mais man yow lamb boole wu exemple la. lamb boole wu ñu dañ mun a fay xaalis bu ma jaral ma bëreeg yow munuñu ma ko fay aw ma. Mhm. problème mu bëreeg benn doomu aadama ak noo munti mel. champion nga mang lay siyaar bu baax mbër bu me isume nga mbër bu yaro nga mbër bu baax nga mhm. mais li ma la xamal moy moytu ma la sóoraale wu ma ci yow dara dañ ma fayul luma jaral pour ma affronter ak yow suñ ma fayul luma jaral damay bëre ak yow buñ mako fayul nak ma ko ni suma liggéey comme ça amé ah, Zambala tamit euh, nanan la momi tam nanan la mais mang mom da def ci lamb lo am solo mm-hmm. waaw d'accord accord mo luma wax mbër bu may isume la mbër bu yaro la mbër bu mhm. baax la mhm. te jambar la mais dama ne la maa duñ ben ci lamb yaa ko raw maanaam mbër yi si eh, maa ko raw loolu ñi ma bëreel ci làmb ñi ma mujjee bëreel ñëpp maa leen raw ci làmb yi yabuñu ama seen junior ba ku ne bëreel rek jël ko Bour Sine may bëreeg moom maa ko raw ci làmb Xaram Ndour may bëreeg moom maa ko raw ci làmb Serigne Ndiaye bi ma daan bëri ci démb may bëreeg moom maa ko raw ci làmb ay salaam wala léegi ñoom ñëpp maa mhm. raw bu baax a baax a baax loo tuddee raw jiitu la wala jiitu li ma bëree bëriwuñ ko li ma def ci làmb defuñ ko Serigne Ndiaye may bëreeg moom set ko set ko mbaa la sept combats la am. Mhm. mi bëri Serigne Ndiaye sept combats la waaw. mi bëri mhm. Serigne Ndiaye sept combats mhm. ok xëy na coow coow seen coowu lam moo leen may moo leen may ñu man a bëre ak yéen. wala liñ def ci làmb xëy na mën nga bëre euh, vingt combats ki bëree dix combats ëpp la palmarès ngir lan ñi mu bëreel yow bëree wala ak ñoom. xam nga dégg déglu ma sama. waaw dama bokkul ci lobby yi. moo tax sama dem sama avance di kanam du intéressé wu len li leen intéressé moy da ngay indi sa mbeur ñew pour mu jaar sama kaw jàll. am na ñoo xamanteni ni nañ ko am na ñoo xamante suñu borom dimbal na len jàll nañ parce que mbeur kessé la. nit kessé la. ok voilà loolu la mais du lenen hmm même bu dul Sambala amul ñeneen ñu fi ne. 2000 mille amé Dem. 2000 lamb ju neex la. 2000 2000 2000 2000 quinze suma ma juumlee deux mille quinze la ko jël laa suuf ba deux mille vingt trois. ok. Mhm. fin deux mille vingt trois. Mhm. te maa ngi doon bëre tooguma dama teg la woon quatre victoires défilé. Mhm. xam nga loolu bon yombatul ci la jamono ji ñu nekk nii ngay bëree te ma aw ma sens di bëree ku tuuti. ñi ma bëreel ñëpp Bour moo ci gën tuuti. Bour Sine ponkal la moom ñi ma bëreel ñëpp moo ci gën tuuti. ah ñi ci des ñëpp da ngay ñew doon tool nu la neex sun borom su suturaam sa kaw combat bi rek la ci bi ma tok ni rek la ci sw muy ma Serigne ndjay bi te loolu la yalla sun borom namu ci man. hmm man tout temps gañ wax na may japp ci galay man len nit do ma dama sun borom fonk nako fonk go xamanteni mhm. japp ko ci galaaj yombul lu ko may dang ko xam trop wala nga jaar ci ko xam. hmm mais japp nit ci galaaj ni rek noppam japp ko galaaj japp ko ci galaaj yombul. yombul wa soit da nga jaar ku ci ko xam wala nga dem ci ku ko xam wala nga jege ku ko xam loolu rek moo mën a nekk pour nga laal do aadama bi. Mhm. mais bu dul loolu nit jàpp ko ci yàlla yombul. Mhm. te man du ma man tout temps nalu suñu borom li may wax ne da nga am say million di ko préparer. Mhm. man suma fukki dërëm wala suma ñaar fukk bi nga xamante ni ñi ma ñi ma entouragé ñu ma ko ñu ngi koy dund ak man te ñu yéen ma te yàlla tax man loolu daf may doy bu ci laam bi daf may satisfaire. comportement boobu laa amee manam duma ma duma ma si si am-am ma may nit damay ñeen nit ci yar. Mhm. ci teggin ak ci wormaal doomu aadama ci lool lay quoi. ok am-am duma ci si nit non non am-am duma ci si ñeen Hmm. bon dina la ko dina la ko sante la yalla nak parce que lool lool sun borom hmm mhm. ba mais burul lool mom am-am duma ci si nit. ok ak chèvre. ok loolu am solo fiñu jéxalé moy ak Bombardier bi taxaw dembu nakomba combat bete la wala no. lu la non non oh. Franc dafa daan ay ay ay ay ay ay moromam ñu bëri Franc boo xoolee dafa dajale Franc li mu def ni ci làmb kenn defaatu ko fi amul fi mhm. waaw mhm. gëj na fi ñaata kombala la am douze douze combat douze victoire loolu gëj na ci ay jamonoy Modou Lo jamonoy ay mhm. Balla Gaye waaw bi ñuy soog a débuté ba léegi nii kenn mënu arrêté Franc xam nga il est temps mu bëre gars yi champion la mbër la bu ma sañoon damay bëre ak Franc nii nii tey liggéey na lu tax mu bëreeg. Euh, Bombardier Bombardier. ah mais euh, dem nañu dégg Père Bakaye mu ni loolu du làmb parce que xale yi ñoom moom ñoom man ak fi Bombardier tollu jamono ji xëy na da ko dafa jàppee. Bombardier mag léegi Bombardier amatul lu muy prouver ci a fait tout. jëlate seul bi nga xamante ni moo fi nekk roi des arènes deux fois moom la ko yàlla jagleel. Mhm. li mu mën a def mooy bi mu ciy toll. Bombardier bi muy bëree ak Tyson ñaata combat la waaw bari na ay combat est ce ko woon ay combat. Mm-hmm, mm-hmm. mi bëreeg ay ay ay ay tafaga ñaata combat la. non non ji des fois du nekku ne ay kii mooy suma doom moo war a dem wala kii mooy suma lii war a dem. Mm-hmm. wala kii laa bokkal lii wala kii laa bokkal dafa def lu tax mu war a bëri ak Reug Reug day bëri day bëri ak ak comment dire que Bombardier. Bombardier ok. lamb lamb lamb moo boole. kuy toog di daan di daan di daan di daan kenn daan loo da war a dem no eh, lamb ji nag moom leen moo fi nekk boo xawee dëgër bopp neexoo daan. Hmm, France sax am na ndimbal tuuti ndax bokk na ci benn lobi mais boo amee boo amee boo naqaree daan dëgër bopp su waaye waay gars yi duñ baax duñ sax bëgg nga dem ndax duñ bëgg nga bëri seen i mhm. bu ma dee moo toog ne carrément demee booy loxo booy sans waaw ñaari booy loxo la ñaari booy lay may kenn gënu fi pros franc ci ci ci ci ci VIP. Mhm. kenn gënu fi pros franc. amul kenn ku fi gën a pros franc kenn. boo xamee wax ma ko. ok ok. sama yoon nekkul ci franc. sama faale wu ma franc lijjanti ma franc sama yoon néew moom. ma seen maamam dañuy bëri tey barki chèvre mais gémmiñ bu waxul dëgg lay wax safaan. wax fen ok. Mhm. ah mais làmb la ñoom ñaar Bombardier par na pour bëre moom. waaw franc ku muy bëre bu bëre Bombardier. ah mais ñu ngi doon wax diggante ma rëgg-rëgg xëy na. ba ci ñeent la de guerre ñeneen ñeneen. bëre rëgg kay mooy bëre xam déet. ok euh, bon mun nga affaire làmb moo leen boole te ji Franc bëgg na ko mbaam ak rëg-rëg rëg mhm. jàpp na ni warul bëre ak Franc xam nga Franc gis na ni su daanee Bombardier rëg-rëg moo du ko bañ effectivement booba loolu moo am mhm. su fekkee Bombardier du ko daan nag mu xoolee leneen ok ok que gis nañ fi mbër boo Niang ñëw na pour prouver si si si Modou Lo si si mhm. Tapha Tine Tapha Tine ok Lac de Guiers essuie mu joxaat ko beneen sens mu essuie mu joxaat ko beneen sens mu dugg ko rëg-rëg mooy bi muy daan Balla Gaye mhm, mhm, mhm. mooy bi muy daan Balla Gaye lambu loolu moo fi nekk dangay ngay def li war xam nga li ci des yi nga bale booy bàyyi ak yàlla suñu borom. ma ok na mais nag gars dañu war a bàyyi ay ay diw li ak lii du combat di li nekkul combat bari na ama neex. ak ak bébé jéen bi ñu koy bëri du làmb li nekkul làmb fii bari na torop. mais bul gis ben nit mu beure combat am sum way waay nga nekk fa naan ay li du combat li du combat tamou def pour tamou mu lo xamanteni sum way su amatul ci lamb Franc hmm. lim def ni amatul ci lamb ken defatu ko fi même ba ci boy amul ben boy bu ci am fi mu toll nii combat 12 victoire kan la. hmm, hmm, hmm kan la nañ waxante deug kan la. gay nañ baye lamb lamb ken moomu ko. benn sant moomu ko benn kër moomu ko. ok <laughs> ben sante moomu lamb ben keur kër moomu ko. <laughs> am solo bek na teew lan ngay lan ngay tagato ba di sante yalla mu mhm. xam nuy suma mbokk géwél yep di xiar ñep di len ñaanal jamm di len ñaanal jamm yeen aussi xam di ñaan senegal jamm yag fi. xam nga comme li wax rek may nuyu suma grand frère à moi Alain Borom len de Dakar. xam di nuyu aussi tamit Ablaye Ndiaye suma grand frère. di nuyu bala fay di nuyu aussi suma soxna di nuyu suma njabot suma grande sœur yi. ma len di xiar bu baax a baax a baax xam nga may waxane xam nga di nuyu tamit samu borom Dramé holding compagnie ma ngi nuyu bu baax diko ñaanal xam nga compagnie bi yalla na dem ba maîtriser marché aduna bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp suñu borom defal ko jàmm bu baax a baax baax defal ko mbolam julit xam nga di nuyu ouvrier yëpp bayuma kenn tolier bi mécanicien bi électricien bi xam nga bayuma kenn ma leen di xaar bu baax a baax baax di leen ñaanal jàmm aussi di nuyu aussi xali yi Habib Ndonga suma boy xam nga nuyu ñëpp ñaan Sénégal jàmm yag fi di wax ne encore une fois wa jaxay nañu genn juboo xam nga waa jaxaay waa jamono waa daaru mi génn gën a jàppale bébé guy gi ci combat bi mu dëgmal suñu borom defar ko ci ndam bu baax a baax parce que xale la te bëgg na te mun na lu muy def nu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax a baax xam nga di woo tamit xam xam nga euh, kayiteer bi yëpp comme nu mu koy waxee xam nga di woo waa kayiteer bi yëpp ñu génn jàppale ko dafa xam seen doom la seen lépp la mm-hmm. te bëgg na te jàmbaar la ñaan ñaanal ko yàlla suñu borom may kon ndam man moom mooy yoroon ndam dama nan ko bul sonn bul dem fenn ñëwal toog ma def ko teg ko sa loxo mhm. parce que moom petit frère am moi li muy coono bu muy daj ci man yaakaar naa ne amul mbër bu mhm. kon lu ma war mooy xama aw ma xaalis bu ko jox ma war mooy heure entraînement bu jotee ma ñëw taxaw mhm. fu ma ko mën a ñaan lul ma ñaan lul ko fa xama di ko ñaanal suñu borom may ko ndam lu sedd ci barke Cheikh Ibra mhm. ak ci liggéeyu ndayam ak barke baayam yàlla na ko wallu ci bis ba incha allah. ok ci barke Cheikh Ibra. jaajëf kontaan naa ci yéen.